ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ين سبي ين خارجي في سن تلفزيون أسفيائي نيون لندي إنديل سن إميشون بو بس مودي نور القرآن نو القران نك نيونا تي برانسو فنونو احكام التجويد ياب رواتينا نك ياو ميغا خامتيني ياي توب مقاماتي سين ايميشن بي نك دينن تي ام اي قراء يو خامتيني دينن في نيو ديغال لين تي القران واي نك ني انديل لين اي كيسيون يو خامتيني دا فاي اديو تي القران فيغا ورا تاخاو ناخ داغان فيغا ورو تا تاخاو ناخ دا فا حرام اك نوي تي باتي ناخ لو وار لا تي بير القران lolou nak fenn ngeen ko meuna amé sen émission nurul Qur'an kagn lay am vendredi bu jot à partir de 10h midi ngeen koy amé fi sen télévision Asfiyahi TV dinañ len jàngal ilmul maqamat te moy air yi nga xamanteni moy ñëw ci alquran waye tamit dinañ len jàngal ci riwaayaat yi ànd ak lolou yëpp yi aju ci règle tajwid dinañ len ko xamal rawati na tamit dinañ def ay animation Qur'an yu am solo te mooy tànn qurra yi nga xamante ni miin nañ leen buñ ci cité ñett mu yóbbaale géew ñëpp ku mel ni Cheikh Mahamad Xalil Alxusari Abdul Basit Moustapha Ismail ak Minchawi rawatina nag ñu am modèle boo xamante ne mi ngi Sénégal surprise lay doon dana ñëw ñu ngi leen di jox nag dig daje vendredi à partir de 10h midi fii si télévision Asfiyahi TV wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu